délégué di quartier yi nga xam ne ñoo nekk commune Jaxaay Parcelles Niacoulrab mën naa wax seen tur parce que dama bokk ci biir membre du bureau la collectif délégué de quartier yi laa bokk xam la ba pare nekk fi représentant délégué de quartier xam la maa ngi wax ci seen tur di leen wax ñun commune bi commune bi ñun suñu bopp dafa am loo xam ne ñun dañ ko si bëgg commune bi ni muy doxee ñun neexuñu ñun ñun de quartier yi gisuñu suñu bopp à chaque fois ñun dañ koy wax fu mu mën dem délégué de carte tout le délégué de carte la commune commune bi muy doxee neexu leen xam nga parce que ñun gisuñu suñu bopp parce que commune bi li fu war a nekk yëpp dara nekku fi amu fi ba pare commune bi état bi dafa ñu bàyyi gisuñu suñu bopp si dara amul dara luñ ci gis suñu bopp muy muy tali muy du dara ba si case bu pëd bii Ablaye Wade moo ko fa defar bi muy dem waaw ñun sax dañuy wax ni jaxaay jaxaay Ablaye Wade te donc Abdoulaye Wade dem na ñun ñoo fi nekk même état bi fi nekk war na mën a jéem a def dara pour jaxaay mais ñun ba léegi ba léegi gisuñu suñu bopp. am na loo waxoon ni sànq sëñ Xaadim am na loo wax muy problème mu jigéen ñi financement yi financement yi liñ leen di financé pour man dafa tuuti. am na yenn yoo xam sax xamoo ko yow par exemple nit daf lay jox presque benn benn somme de deux cent mille bu la joxee deux cent mille ni la chaque fin de mois nag ma yónnee vingt mille vingt mille boobu moom ngay liggéeyal. moom ngay liggéeyal te yow doo am dara boobaa yow doo am dara xam nga man dama koy bañ man dama koy kaas tout ça à chaque fois dama koy kaas si jigéen ñi. parce que ki lay dimbali daf lay jox du laaj dara nga dugal sa kees boo paree lépp loo ci am yow yaa ko moom te léegi day nekk somme boo xam ne ëllëg di ci mën a liggéey mais ay somme deux cent millions yooyu du liggéey du liggéey nit ñi nag dañu war a gëm seen bopp. parce que dañ toll phase boo xam ne fi mu toll nii nit ñi si bopp ñoo war a ñoo war a yeewu gëm seen bopp. parce que lii lii ñuy def lii ñuy def nii nit ñi kenn mënul dugg ci kër kenn ku si nekk di la yeewu la ñu lay kii nit sa boppam yow yaa war xalaat sa bopp xalaat man fan laa jëm parce que yow fi mu toll nii deux mille cinq cent yooyu ñu lay jox wala kii mi tiset boobu ñu lay jox yow ëllëg fi mu toll nii ki fi toog nekk président ay at la fiy toog yow loolu loolu nga am noonu bu ëllëgee yow tout benn fan ñaari fan nga koy dundee mu jeex xool xoolal su yow euh, deux cent mille yi ñu jox bu dee cent jigéen la kenn ku si nekk li ngay am matul cinq mille francs cinq mille francs boobu nan nga koy def yow nga bu ko dundee weer loolu loolu du xaalis loolu du xaalis jigéen ñi da ngeen il faut ngeen gëm seen bopp xool fi ngeen taxaw aussi tamit naa wax benn affaire par exemple nit ñi dañ lay jox benn deux cent mille la benn kii yow ñu bugg la mobiliser loo yow bu ñu amee programme wula wala euh, mobilisation yow Pikine waa Pikine boo demee waa Pikine ñoom du ñu génn ñi nekk fii la ñuy jël yóbbu leen Pikine yóbbu leen Pikine ñuy teeru ñuy teeru wala yóbbu leen Dakar ñuy teeru te ñi nekk fii ñoom bu ñu amee benn benn programme ñoom ñi nekk fii du duñ ci bokk sax wala duñ leen duñ leen faale duñ leen faale yooyu il faut ngeen koy bañ nu dafa war a am dignité gëm boppam di xool fan laa jëm ak fan laa egg waaw kii nag ma gis nii kii man xam naa ni doy na ma parce que am na loo xam ne gis naa ko léegi moo njëkk xaw ma seetlu ngeen ko xaw ma euh, yéen ñi suñu ji moom mus maire maire laax en tant que maire bi sax mus fa teg tànkam mus fa teg tànkam musu teg tànkam xam la loolu moom naa man lan koy kii mus fa teg tànkam xam la waaw amul kenn koo xam ne mën na koo xam xàmmee xam nga lool lu garaaw la loolu lu garaaw la xam la te yow bi nga ñëwee léegi dugg nga si biir jàkka ji xam la lool rek seede la la man nag foofu laay foofu leen bal wax yéen ñëpp wax ji bon bañ koo guddal quoi. jàmm rek leen ñor kon Seydou Niang bisimilah. salaamaaleykum bisimilahi rahmaani rahim. auzu billahi mina seytaani di sant sëñ Xaadim bu baax a baax a baax. ndax man yaakaar naa ne lii buñ ko amee it moom la c'est grâce à nañ ko santee sëñ Xaadim balaa ñoo wax lenn ndax nit bu la defalee da ba nga xam ne ne defal na la ah nee ko jërëjëf wax dëgg fa yàlla li ci des mooy son excellence ñun waa jaxaay duñ ne la sonn nañu waaye kuñ dimbale ñu jël ndax euh, ñàkkuñu jom yaa fusu ñit benn ndaw nekk fii di ñaan kenn bu dee mën nga ñoo dimbale te yàlla rek tax ñu fas yéene laa topp te yàlla rek tax ngir jëmmi sëñ xaadim mi sunu bopp lañ am sunu jom lañ am duñ ko jaay ci lu ñàkk fay la ay ndaw lañ dañoo gëm sunu bopp dañoo xam lu ñuy def waruñu taxawaalu kenn ku ci nekk ci ñun ñi boo doon xool am na fa mu jàpp te wallaahi lazim mën naa génnee depaasu këram. kon loolu rek alhamdulilahi rabbil alamin la ñuy wax ba pare ñun nag waa groupe jàmm ji ci tur ñëpp laay waxe li waral wax ji mooy euh, sëñ Xaadim dafa def loo xam ne kilifa da koy def ndax boo jiitoo ne man kase maay dowal nu ma neexee te laajuma ci kenn yaakaar naa ne bu yàggee doo am ñi nga bëgg waaye dafa jiitu xeebul sunu xam-xam wallaahi lazim xeebul xam-xamu kenn mu nekk sunu sëriñ di sunu la man de wax dëgg fa yàlla man dama naan sama sëriñ la ndax sëñ bàmba rek laa gëm lu dul sëñ bàmba neen la ci man ndax saa yu ma yeewoo néew ma jërëjëfe sëriñ tuubaa wax dëgg bu ma la waxee dëgg sama xol du sedd bu ma gisee surtout sëriñ Touba toog nag Mbàkke ñoo ngi jéggalu ci taxawaay bi ñu taxaw nii di wax ak yow waaye li ñu bëgg mooy te yàlla rek tax ñun ay ndaw lañ sunu yaa ngi nii toog. wax dëgg ñoom it mention spéciale sunu yaay dañu lay ñaan te yàlla rek tax bu dee mun nga ñoo jàppale te yàlla rek tax ñaanuñu la ngir ne la dañ lay neexal déedéet ndax olof njaay booy wax dane booy wax wax li nekk sa biir xol ngir ëllëgi ci biir kat bu taxawee ne la carrément la nga waxoon sa biir xol moom nga jëfe ñun li ñuy jëfe mooy boo ñuy jàppalee te yàlla rek tax ndax yàlla rek lañ am ndax kuy wóolu yàlla ngay wóolu te it ku yaakaar yàlla nga yaakaar boo ñaan yàlla ngay ñaan ba ci sa jëm bopp bii booy julli boo ne allahu akbar sa xel bu tàbbiwul ci yàlla yaakaar naa ne say julli du taxaw kon li ñu war mooy nañ jël lépp delloo ko ci loxoy yàlla mooy nga jàppale ñu ñu jàppale la nga nekkal ñu ñu nekkal la ngir jëmmi si xaadim jërëjëf